ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu leen notification ci commune Djiddah Thiaroye Kaw donc euh, ngeen ñëw seet si la plateforme les boucliers de Mamadou Gueye nek plateforme bo xamni day exceller ci walu développement ci walu santé ak ci walu bépp wala dal bo xamni day fexé nit ñi am euh, am nekkine bu baax tay ji nak ñu nekkon ci rentrée scolaire ñu xamni fi ni zone bo xamni tamet tamit na lo xamni élèves dañuy bayyi jang parce que amuñu les moyens ñu ni pourquoi pas duñ dégager ben montant pour jappalé élèves yi pour nous mën à am des sac des ay cahier ak ay matériel pour préparer cette rentrée Nous sommes nuyu bu baax avec le président Mamadou Gueye, le directeur des domaines l'actuel maire de Djiddah parce que tamit lii bu mënee nekk moom nous ñu ko quoi. bon à tey jii rek nañ 300 sacs Inch'Allah. mais suba tamit bëgg nañ continuer distribution parce que dafa guddi en tout 500 kits Inch'Allah wa les boucliers de Mamour Gueye moom dañuy dañuy yëngu ci bép activité bo xamni ni day ñoŋal nekkinu askan wi dañuy yëngu ci walu santé parfois ñu gis ay nit yo xamni ne dañoo feebar seen loxo matul seen ginaaw ñu jëndal leen say ordonnance parfois ñu gis ay maire yo xamni dañuy bëgg balé ñu jëndal leen ay balé parfois ñu gis tamit des situa des personnes yo xamni seen loxo jotul seen ginaaw ñu jëndal leen ceeb dëwliñ dem séti leen donc dal ci bép domaine on est là pour accompagner le maire dans sa mission régalienne. tout bi amna na sac bu baax bo xamni élève bi jàngee ñaari at ñetti at parce que boy mayee da ngay mayee qualité def ci ay def ci juro def ci ñenti cahier 100 pages def ci deux cahier 100 pages ak matériel géométrie bu mag bi big bleu ay big bleu ñenti big bleu ak benn big rouge. non tay ji ni euh, nous avons ciblé toute la couche défavorisée de la population donc coudal euh, dal sixième ba terminal dañoo Yoni nit ñi sans distinction nak amul ki Mamadou Gueye la Andal ki àndul ak Mamadou Gueye je pense que les acteurs qui ont été invités pour faire.